wax ak euh, njiit lu bees li mooy ñi ñu naan blessé de guerre yi seen àq ak yelleef la ñuy waaw ñoom nag euh, fukk ak juróomi ñaari soldaa yu nekk ci armée bi euh, am nag ay rëq-rëq yu leen dal gannaaw ba ñu tëbe ci ay miin fële ci Casamance ñoom nag fukki at a ngi nii li ñuy jot ci salaire néew na loolu looloo tax nag ñoom fi mu ne ñuy laaj ñuy delloo leen seen i àq ak seen i yelleef soldat yooyu ñu déglu leen ki yor seen kàddu di Ibrahima Ndoye. ñun ay militaire lan tey ji carte bii carte militaire la professionnel ñun ñëpp moom lañ yor en tant que militaire blessé yi 17 personnes lan yi nga xam ne tey ba léegi ñu ngi souffrir pendant des années jotuñu seen salaire bi fi Ablaye Wade toogee ba léegi mosuñoo gis sax Ablaye Wade mosuñoo am décoration suñu problème bi réglewul ba léegi ñun nag ñun li ñuy metti li nga xam ne moom moo ñu metti mooy en tant que des militaires liggéey Sénégal liggéeyal askan wi ñu toog ba léegi fukki at ak juróom jotoo sa salaire dafa ñaaw li tax ñu toog ba heure bi di génn parce que campagne moo amoon lépp ñu tënk ko ñi carrément bu campagne bi jeexee nañ leen ñaan jàmm si réew mi ba jàmm am ñu génn wax ak nit ñi si jàmm ndax suñu koppar yi ñu ñu ameel ñu jox ñu ko si jàmm parce que dafa metti ñuy dund ba léegi yor jabar yor doom di ko onze mille six cent francs ñaari junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk si fukki nit ak juróom-ñaar yi nga xam ne ba léegi ñu ngi si armée bi ah seen i tànk dem seen i bët dem dafa ñaaw